waaye nañu am xel mu dal ni yàlla mi doon bind tuyaaba dana continuer di leen bindal tuyaaba ci yéene yu rafet yooyu nga amoon ba takkoon jaam bi ba mu xamee ni naroon naa dem mbaa waroon naa yóbbu nit mu dem yéene ju rafetam jooju mu amoon te yàlla dogal tànk-tànki jamono dox digganteem ak moom na xam ni te nañu ko ci mu joxe loola waaye ka doon fay moom génne woon na budget bi ba àggal te doo ko delloo dana ko jox seen waroom kon nag loolu day li muy tekki yéen ñi amoon yéene yéen itam ci dem makka amoon yéene yóbbu nit mu dem màkka ngelawaay yéene jooju bu mu dañ la nga yéene woon a jox waa jooju nga yërëm ci mu joxi farataam ba bisub tey bul ca génn jëlal loola jox ko ko mu def ko feneen ndax jamono boobu tuyaa ba ngay wut kon yool ba nga waroon a am ci ajali ko màkka continuer nga di ko am yool bi nga waroon a am ci dem màkka bi nga continuer di ko am kon tey bu kenn tekki ngembam ba mu yéeneem naroon na ma yóbbu màkka yow miiw naroon naa laa yóbbu waaye mbas mee tax déedéet alal ji nga ko doon yóbbu mu di ko yóbboo makka léeg-léeg sax aajo woon na ko ci këram lu ëpp yoonu màkka kon ngalawaay jox ko ko mu dunde ko jox ko ko mu àggale jànkam bële jox ko ko mu àggale naalam mu tëwee bu boobaa am nga tuyaaba joo xam ne ni mooy dem màkk te ñaanal ko yàlla jamono bu aj ubbee fekk mu mën a yóbbu boppam te loolu yomb na lool kon mën nañoo téye yittey nit ñi ba duñu dem waaye yéene yu rafet yi moom bu ko kenn téye innamal amalu binniyaati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na bu ngeen yéenee lu rafet rek ma fekk si leen ci loolu la yàlla wax loolu mi ngi ko wax bis ba keroog bi ñuy gàddaay di dem makka jóge makka jëm Medina ñi am pas-pas bu wér ak gëm gu wér fu leen yonent bi sóob ñu nangu ñooñu nangoo ànd ak moom di jéggi xeer yi di jéggi tàngoor yi fu ñu jëm ngir rawale seen diine ci barab ba diine amee jàmm muy dëkk bu ñu wooyee madinatul munawwara loole ba mu demee ba ñu fa àggee fekk nañ fa xol yu yaatu fekk nañ fa dof dënn yu ubbeeku teeru leen tereel leen teraanga joo xam ne ña demul woon bañ ko déggee dañoo daal di fabu ni nanu dem ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaa yaa ngoog gaa yaa ngi ñëw ndax yëg nañu leen fi am ci teraanga ci ay tool ci ay soxna ci ay kër bañu ngi ñëw yonent bi na ñëpp ñëw yéene yi moom yàlla mi ko xam mi nga xam ne moo nekk ci xol yi xam na lépp fa man kaanat ijratuhu lillahi wa rasuli fa ijratu ilallahi wa rasuli wa man kaanat ijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin yankawuha fa ijratu ila ma ajara ilay yonent bi ni ku ñëw ngeen am lii ngeen am bu fekkee yàlla rek a tax ak nu mu mën a demee da nga am yàlla waaye ku gàddaay nag ngir koomum àddina moo jàpp ni di nga ko ci am wala bànneexu àddina boo jàpp ni di nga ko am boo dikkee yàlla jox la loola te mu yem fa loolu yi nag moo ñëwaat tey kon ñi amoon yéenee dem màkka nañu xam ni yéene yi yàlla dina ko àggale ñi amoon yéene yóbbu nit màkka nañu àggale yéene yi ndax alal lañ daan joxe pour mu dem alal jaa ngi fi nañ ko continuer jox ko ñooñee loolu mooy xéewal bi bu boobaa mën na cee jariñu lu baree bare ndimbalante wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal odwaan yàlla moo nu digaloon ni na ngeen di dimbalante seen biir te ngeen di dimbalante ci mbaax waaye bu leen dimbalante ca safaan ba safaan bi kenn waru cee dimbalante te nit ñi ne dafa mel ni alal aksi min dafa mel ni jamono bii leen la yàlla ne woon bu ko ci kenn dimbalante foofa lañuy ñuy dimbalante léegi foofa la ñuy dimbalante loola feeñ na ci phénomène bi nekk ci àddina bi fii mu ne te di ko bëgg a tas di bëgg a tas bokk gi di bëgg a tas diine ji muy li ñuy woye réseaux sociaux yi xoolal niñ ciy dimbalantee alal ismi wal odwaan jamono boo génnee benn audio wala benn vidéo buy xas doomu aadama bu yàq doomu aadama balaa ngoon a jot dina daj fépp te jamono boo génne woon benn vidéo buy wax nit ñi lu ñu war a gëmee yàlla buy wax nit ñi nu ñu war a jàppe nu ñu war a jullee nu ñu war a woore nu ñu war a asakaare nu ñu war a woore aj dinga fi toog weer téeméeri duñ ko liir kon la yataawanoona alal birri wa taqwa bal yataawanoona bil kon li ñuy dimbalante loolu yi musiba la mbooleem li ñuy def musiba yi mas a am ci àddina ñu ngi wax ay mbas waaye mbas mu gën a rëy loolu amul te kat xiiwal gu rëyee ci nekkoon bu fekkoon ne xamoon nanu xiiwal gi nu yàlla indil ci loolu ñuy wax réseaux sociaux yi li nu ci yàlla indil ci xiiwal portable yooyu nu yor nga xam ne yàq na sunuy nelaw yàq na sunu jaamu yàq na sunu dund te wallahi li ci nekk ci xiiwal bu nu ko jariñoo wan kenn du xam na mu toll xoolal dongab daara bii nga xam ne am na téere bu mu doon dégg musta mën a am njëg gi tey mu yor paquet bu tuuti boo xam ne bu ko tere sarse rek téere bi génn mu mën koo jariñoo looloo yóbbu ko ba ëllëg mu mën a taalib ay téere ci boîte bu ndaw boobu le waa loolu teen koo jariñoo waaye lu ñu koy jariñoo dégg nga li diw wax diw yónnee ma ko dégg nga saaga wi diw saaga diw yónnee ma ko léeg-léeg sax bu ñu amul saaga woowu ñu jéem a toppi kole ba am luy niroog lu bon boo waxee ay wax wax ji lu mu rafet rafet benn baat boo ca doon boo ca doon wax du doon baat bu ñaaw dafa am foo ko jëmale ñu ni ko daget bu ñu ko daggee teg ko ku dégg loola danaan waa ji da doon saaga te fekk na danga koo jukki rek nit ku bon nag mooy jukki nit ku bon mooy jukki loolu amoon na boo ma saa gis ci bindkat yi ñi nga xam ne nii dañuy dal ñaare ay nit rawatina sunu anam gii nu nekk di tasawuf mboolem ñi koy raddu mboolem ñi koy delloo dañ leen di duural ci ay terme di leen duural ci ay faqaraat yoo xam ni dañoo tappaleeka dajalaatu rek ba mu niru saaga dajalaatu rek ba mu niru lu bon ñu génnee li ne li ñuy def lii lañ ciy jublu ñooña buñ ñëwoon tey dugg ci jumaay ji nii mu yaatoo nii mu feese fa tabaarakallahu ni sàppe yi jekke bu boobaat du ñu génne loolu waaye dañuy dem ca ginnaaw jumaa ja seet waajuy fo waajuy caaxaan ñu foto ko ni lii mooy jumaa ja loolu mooy copie yu bon loolu yi nag lañu jumtukaay boobu indil kon ki jëfandikoo jumtukaay boobu ci googu anam lañu ko doon tere démb lépp def na ko jikko yu bon ak kabaayir bakkaar yu mag yi nu doon yi nu yàlla doon tere muy jëw muy rambaaj muy fen yooyu yépp tey jël nañu jumtukaay bi mu gën cee am place fu ñu toll ñu ngi jaxase nit ak nit ñu ngi toxal yu bon lu wax ji baax baax bu doon junni yu baax bu ca benn génnee boo xam ne mënees na ko utile ci bon boobee moom la ñu naan juxeet ni déggal waa ji li mu wax mbokk yi ndax jumtukaay boobu jotul ñu jariñoo ko ci sunu lislaam ngir déggal wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamu ni woon inna allaha yuayidu umuura haasa diin bi rajulil fajir nit ku bokkul ci diine léeg-léeg mën naa defar loo xam ni day jëriñ diine te lii bokk na ca wax naa la li nga ci mën a am ci xam-xam li nga ci mën a am ci téere li nga ci mën a defaruk bokk goo xam ni waajaa ngi ca Amérique nga mën a defar bokk gi fii ci Sénégal waajaa nga feneen nga mën koo defar jumtukaay boobu lu rëy loolu mu am lu tee ñu utiliser ko ci waaye safaan ba mbokk yi noo ngi ciy rambaaj mbokk yi noo ngi ciy wax lu amul mbokk yi noo ngi ciy tas ak bokk mbokk yi noo ngi ciy xeexale aw nit ndax loolu lanu yàlla digaloon déedéet yàlla danoo digal nuy def lu baax di wax lu baax di yéenente lu baax ci loolu la ñuy amee njariñ tey ak ëllëg te kii nga xam ni moom la ñuy wax ni mooy sunu kilifa Mawlana Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu ci loolu la nekkoon ci loolu lañ doon digal loolu la daan ubbi fenêtre ba ca jàkka ja di ko tombal mag ña di leen ko wax di leen teg ci njub ba loola yóbbe woon leen ci njub njubin woo xam ni ka jàng ba jeexal téere yi ak ci firul iji ñoo yem ci jaar ci yoon ndax lan dañoo dégg ndigal baat bu sëriñ bi wax ni def leen baatuñ ko lu sëriñ bi wax ni bàyyi leen defatuñu ko loolu mooy topp ndigal léeg-léeg nag baat boobu dañ koy firi dañ koy tënk rool rek ni murit ndigal léeg-léeg waaye lan mooy ndigal kenn du ko tas kenn du ko tas kenn du tas itam kan mooy digle kan mooy digle mooy lan bu ñu nee al amru hunaka amir am na ku war a digle ki war a digle kan la mooy borom yëf yi moo war a digle de ki ci des lu mu war a def mooy jottali waaye kenn du sos ndigal